at bii Pape Cheikh euh, dafa nekk ci li nga xamante ne moom moo di 4400 personnes ñoom ñoo disparaître en mer. 4404 chiffre la boo xam ne bu symbolique la mais c'est pas seulement des sénégalais. africains yëpp jeunes africain yoo xam ne dañu périr en mer. suñu xoolee bilan wu at bi day nekk au nombre de 4400 personnes ba pare li ci doy waar mooy euh, avec ak ay jigéen yoo xam ne elles sont au nombre de 628. ay xale 225 xale yoo xam ne des nañ ci géej gi donc euh, ñenn ñi ci euh, naufrage la ah ci route Canaries bi ah plus de 4 4016 personnes ci yoonu Algérie bi Pape Cheikh plus de 181 personnes mun nañ fi nekk di ko lim fii ba suba may nañ jàpp daal ne 4404 personnes disparaître nañu mhm. ci benn Euh, euh, at kese mais li ci yéeme Pape Cheikh mooy actuellement à l'heure ñuy waxtaan il y euh, ay sénégalais yoo xam ne dañ leen a jàpp ca bu mhm. ñoom dañoo jëloon embarcation boo xam ne dañoo jël gaal yi di dem xam nga Nouakchott mhm. Mauritanie du moins safa nekk parti bu am importance ci jóge mhm. Sénégal pour dem fi nga xam ne moom moo di Espagne donc bi ñu leen jàppee borom gaal yi daw ñoom ba léegi ñi ngi ci prison yi borom gaal yi leen yaboon daw nañu mais ñi ngi en prison Mauritanie la ñuy jaar jaar pour dem côté Maroc pour mën a dugg Espagne donc fi may wax a yow ni sénégalais yi ñu ngi ci kaso yi loolu moo doy waar dafa am ñu bëri ñu nekk ci kaso côté Mauritanie bi ah côté Mauritanie Nouadhibou lañ leen téye actuellement oh. boobu ba tey nag ñi ngi alerté autorités yi xam naa ne du ñàkk bu ñu seetaanee émission bi comme quartier général moom la àdduna di seetaan ñu wàllu leen parce que ñoom la seul tort qu'ils ont mooy jël embarcation de fortune pour dem borom gaal yi daw jàpp ñu borom gaal yi ñoom ñu jël leen au lieu ñu delloo si leen ñu ngi leen tëj ci kaso Nouadhibou boobu nag appel la boo xam ne ñu ngi koy lancé il son ab defe naa quatre moom moo fa des quatre sénégalais yoo xam ne ñu ngi ci kaso euh, fi nga xam ne moom moo di Nouadhibou euh, image bi ngeen di gis xam naa ne dina dinañu ko teg dafa am benn xale boo xam ne tam dañuy taxaw seetlu ci mu ngi tudd Aïssata Ndiaye Aïssata Ndiaye euh, moom dafa nekk une jeune sénégalaise boo xamante ne dafa dem moom ngeen di gis ne may waxal ci ci ci image yi fa demoon ci gaal yi moom demul woon embarqué wul Sénégal dafa dem ba Maroc bëgg a dem Europe nee na mu toog ba guddi ñu woo leen ne leen léegi da ngeen di embarqué fekk fay nañ ba pare mu defee ne bateau lañ ko waxoon ni ci lay dugg nee na heure dem bi jot mu gis ñuy ëf ay ballon di ëf ay euh, euh, bouée genre bouée yooyu mhm. affaire bi jaaxal ko ñu ne ci lii ngeen di embarqué alors amuloon beneen pexe mu dugg ci biir euh, euh, euh, buwe yooyu ñu dem ba ci biir moom ni voilà bi Radisson la woon dafa am benn ndaje bu fa amoon bu soxna naata organiser woon donc léegi moom dafa def genre reconversion ñu recruter ko ci organisme internationaux yi pour muy mën a nekk en exemple pour de nombreuses jeunes fii parce que Pape Cheikh ñu ci bëri jigéen dafa vulnérable dinañ leen sàkku ci àll yi dinañ leen def ay esclave mënuloo xam la nombre de personne rawatina jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo jugoon pour dem uti waaye ñu téye leen ci frontières yi la ñuy càng pour bëgg a dem fi nga xam ne moom moo di à l'étranger jigéen nekk couche boo xam ne bu vulnérable la moom elle fait partie de ces filles yàlla dimbali ko mu am euh, benn miracle moom moo tax parce que dafa jékki-jékki euh, gaal bi affaire bi euh, toj ñoom ñëpp nit ñi daanu nii di dee mu leen di gis léegi li mu def moom mooy nee na dafa xëm dafa jékki-jékki yàlla dimbali ko ñu sauvé ko mhm. euh, mu ximmali ko dem fi nga xam ne ñu ñu ximmali ko après fexe ba ñu indiwaat ko mhm. euh, Sénégal alors que embarqué wul fii dafa dem ba Maroc bëgg jàll mhm. boobu benn la ci benn euh, exemple mais yaa a million millions de xale yu jigéen ak góor yoo xam ne pour ñoom pour ñu mën a tekki ci seen àdduna rek il faut ñu génn Sénégal du ñu leen blâmer ci benn côté jël gaal moo dul yoon jël gaal digaluñ ko kenn ndax géej amul bànqaas mm-hmm. mais tamit nañu gën a accentuer politique bi nga xam ne moom mooy permettre ay mécanisme muy politique de l'emploi des jeunes nga xam ne dina leen permettre ñu mën a am ci lu ñu téye parce que mënoo topp nit ki naan ko toogal ci dëkk bi bul dem fenn tukki baaxul te tegaloo dara ci loxoom beneen alternative euh, nga yeewu suba teel di xool sa njaboot di xool sa waajur mm-hmm. bëgg a faj te mënoo faj am sa soxla làmb sa poos faj ko ci saa si dafa neex xale yi am nañu jom nañu mais mënuñu mm-hmm. politique xam ne moom la teg dirigeant africain yi il faut ñu gën ko xoolaat mm-hmm. on a tout en Afrique mm-hmm. am nañu ressources naturelles am nañu ressources humaines boo xam ne li ñu am ci nombre de jeunes mm-hmm. yoo xamante ne am àdduna bi yëpp amuñu ko kon on a tout li si des rek mooy ñu gën a wu ci gis naa nag euh, barki Dembo Ndiaye chef de l'État di gën a ci li nga xam ne moom moo di politique ndax yi ñu fi tegoon yëpp pour jàppale jeunes yi ba tey jeunes Euh, mais des fois du ñu am autonomie. Mhm. soo xoolee ci yeneen image yi dem nañ fi Saint-Louis ci journée bi nga xam ne moom la ñu organiser journée du migrant. Mhm. Euh, waa direction générale des Sénégalais de l'extérieur organiser ko ci Amadou François gay mhm. mais dafa am ay xale yu ma fa dajeel yoo xam ne ñoom it dañ leen a indiwaat. ñenn ñi seen gaal dafa tàkk muy ñoom sàmba maa ngi leen di nuyu ñoom ngeen di gis nii euh, c'était à Saint-Louis yegg quoi ci bi la ñu yem non dem nañu. ba yegg ba Maroc. ah côté Maroc la ñoom ñoo cangoon Maroc nekk une centaine def fa ay weer ba mu amoon une femme enceinte. ñu sonn bay bëgg a dee mais euh, euh, sénégalais yi euh, autorités yi fexe nañ ba ñu ñëwaat. mais bi nga ñëwaatee aussi. ils n'ont rien ba léegi ah. Ah. accompagnement ak suivi ah. léegi mun na leen tàntewaat ñu tegaat gaal ñu dem ñoom nag mm. seen groupe bi ñu def wax nañu lu dal xel mm. parce que ñi ngi naan bu ñu karawoon géej gi sax duñ ci duggaat di dem mm-hmm. mais li ñu bëgg mooy ñu taxawu leen xam naa ne ñi ngi leen di taxawu sax mais nañ ko gën a dooleel pour que xale yi mën a toog ci dëkk mm-hmm. bi te ku bëgg a tukki tukki ndax tukki droit la war a nekk tout être vivant te bu fekkente ne tey ji affaire yi amul équilibre bu dee doomu tubaab a danga def immigration clandestine. Mhm. nga échoué. Mhm. ñëw ñu dañ la war a jox liggéey par la force. non non ñi nga fi fekk itam ñoom it amuñu liggéey. ñu ngi koy wut absolument. nga wax je sais pas xaw ndax vous comprenez ce que je veux dire. parce que du par la force lañ la ko war a jox aussi voilà li nga wax voilà da dafa am solo parce que da wax ni euh, euh, beneen sénégalais gënul beneen c'est pas dañ leen war a teg au dessus de ñeneen ñi donc li nga wax lu ama non Pape nag da ngaa nag <laughs> fi nga génn nooy na mais une fois de plus daal Pape nañu gën defaraat mhm. et que Euh, li nga xam ne moom mooy condition bi ñu leen war a jàppale mu nekk loo xam ne lu équilibré la. Mm-hmm. parce que souvent yi ñuy teg dañu naan doo xam fooy jaar. Mm-hmm. et que ku bokkul parti politique wala bokkuloo ci yenn yi doo am accès ci yenn euh, financement yeeg yi lay permettre pour nga mën a dem. Mm-hmm. te ñoom euh, souvent ñi ngi naan autorité yi que c'est donné à tout le monde jarul ngay am affiliation ci fenn sénégalais yi lañ ko fi tegal wax dëgg yàlla nag def nañu effort teg fi ay structures yoo xamante ne pour xale yi la boo gisee BAOS mooy bureau d'orientation et de ngi koy samp ci région bu nekk mais dafa taxawagul euh, complètement mais en tout cas daal loolu moo doon taxaw seetlu bi tey baay mhm. euh, ku mel ne Aïssata Ndiaye aujourd'hui mu ngi mhm. inspiré ay xale yu ah bari ah ñoom Samba ñi ngay gis nag ñi ngi toog di xoole ñoom euh, defuñu dara tailleur la ñu kenn ku ci nekk am nga métier te formation professionnelle moom mooy tax ay mbir dem ma ne woon daal tey nañ ci nañ ci taxaw seetlu mais Pape c'est un drame mhm. parce que foo dem ci àdduna bi que ça soit ci frontière yi muy xale yaa ngi éparpillé wu fépp ci àdduna bi chaque jour nga toog nit woo ne gisatuma sama doom ñoom tam dañu war a toog ndax ñoom ñooy dee ci géej gi te bu ñu mhm. deewee ñoom ñooy ñàkk mhm. xam nga lu ma la wax parce que nag bëgg a faj euh, euh, baax na mais mhm. euh, il faut daal ñu arrêté jaar ci yoon yi nga xamante ne sa bakkan njëriñ loo fekke daal voilà waaw gis ñiy soit si montagne yi wala bu ñu demee ba Libye limite esclavage la pour nga mun a eggale rek sa voyage ñiy egg bëriwul on leur mais dafay mel ni parfois sooy wax nit bu bëggee voyager booy wax ak moom si danger sa da lay jéppi te yaakaar naa actuellement Europe jaxasoo na jaxasoo boo xamante ne entre guerre nombre de réfugiés yuy jógee même biir Europe pour dugg biir Europe bëri na Europe balaa sa xol benn naqari oustaz Pape Anne nga dem ci dëkku naar yi ba fekk ni ñuy maltraité africains yi merci ba gis xale sénégalais yi li ñu fay daj dem naa Dubaï da ngay dugg ci benn néeg du ñu luwe ay ay lal la ñuy loué. Mm-hmm. c'est-à-dire condition bi nga bàyyi fii sax moo gën. métti mm-hmm. mm-hmm. que en fait suñu tukkee dañu naan pare nañ pour accepter lépp ndaxte foofu su ma demee dinaa liggéey kenn du ma xamal mais à un moment donné il faut nga jéem a tekki ci sa dëkk te comme organisme yi ñu teg keps jeunes yu bëri da ngay bloquer sa bopp avant d'y aller en fait tu te dis man su ma demee xaw ma kenn donc je peux pas mais je que soo amee projet bu pertinent bind ko ni mu waree dem ñu dimbali la nga bind ko même boo mënul bind dinañ la jàppale nga bind ko topp ko chaque jour nga xëy si gontu si euh, balaa at bi di jeex. après aussi parallèlement am na ay xale yu bind ay projet kenn kenn financé wu leen kenn dimbali wu leen. mais du ñëpp la ñuy mun ah, financé tam problème ñun ñun dañu am population jeune il faut qu'on trouve les solutions. man du ma woot ba ngoon di wax ci ay problème sax. moom demoon naa génn naa ci yéen. une solution parce que xale yi jàpp problème rek daf ma doy fi. <laughs> pourtant li mu wax dëgg la Euh, Kankou Thiam déjà moom mooy directrice du crédit pour euh, jigéen ñi mu ngi ñuy réagir effectivement DER mi ngi fi nee nañu ak euh, fi nga xam ne moom moo di FONGIP ak FNCF loolu yëpp c'est pour accompagner les jeunes. et les voilà et les femmes surtout. Mais, mais donc euh, accessibilité bi nag la ñuy xool problème bi loolu la ñëpp di voilà parce que ñu bëri nee nañu déjà pour nga bind projet il faut mu répondre yenn normes yi. Mhm. mënuloo ko bindal sa bopp il faut nga dem ñu bindal. la ko on va pas en faire un débat si on en fait un débat on risque de perdre du temps puisqu'il est minuit onze. d'accord il a une population jeune. il a une autre partie qui nous attend voilà donc ñun ñëpp a koy trouver ndoo. voilà Oustaz mais laaj Pape. waaw euh, imam yaa taaliba rizqa fi dunia bi quwatihi mu ni taduuru ilal baladi fiiha ilal balad mu ni wax sin an naaka aw wax sin inaanak ndax li am na rizqa munqasimun yëgti ilayka walaw fii jëbgati asadi nee na yow mi sàkku wërsëg ci àddina nee na bëgg a wëndeelu alaaj pap gis nga nee na bëgg a wëndeelu mm-hmm. min baladin fiiha ilal